thank you moo ngi tudd Marème Niang nek théâtre kat bo xamné kenn duko présenter présenté ci li nga xamné mom moy milieu art bu Sénégal ñëpp xam nañ ko ñëpp ràññee nañ ko ci talent wam ak euh, yag bi mu yag ci milieu bi parce que néna na ma 1982 le dugg fi nga xamné mom moy mooy Daaray Kocc laaj naa ko tamit ndax Daaray coach. dafa tas ku nek da nga demal sa bop mu ne ma déedéet Daaray Kocc famille la suñu production ñi ngi ñëw mais c'est une famille Marème Niang nag gis ngeen ko gis ngeen ko avant gis ngeen ko tamit temps yi passé ci nga xamné mom moom

man maa ngi leen di leen ziar di nuyu tamit képp koo xam ne kat yaa ngi seetaan Pikini eh, ndax ñooñu ay liggéeykat lañ ay xale ñu xarañ ñoo fa nekk macha allah di ñaan yàlla yàlla na yàlla fa leen cat jàppale leen seen liggéey te barkeel ko. <laughs> d'accord euh, ban rôle tamit ngay gën a nekkee à l'aise booy tourner parce que mën nañ la jox nit ki mën nga polyvalent ñu jox la rôle yu bëri mais am na boo xam ni moom mhm. buñ la ko joxee tu es tout le temps à l'aise. waaw comme man comme li ma ko waxee rek man dama nekk di ko xam ne ki dama dal dama calme.

waaw ñu ne waaw man ak ñun man man ah man musuma non c'est que musuma ko essayer musuma essayer benen bu dul loolu parce que nit ñi xam nga dañ naan artistes yu euh peut-être jikko bi ngay am ni peut-être ci lañ lay gis jox la rôle parce que ñom buñ la buñ la boy nek ak ñom buñ ñu ki ngi ah mais mère du mom calme na rôle bi mom moko wara yor ñu ne ah mère du ñu ne nañ séti mère Diallo yii kooku de tañax tañax tañax lay def xam nga ñom dañ koy dañ koy xol dañ koy xolé nonu joxe wa wa ñu ne ah way rôle bi de non bu ñu ko jox mère Marème nañ ko jox mère Sën ndax mère Sën a gën a kii xam nga yooyu la ñoom noonu la ñu calculer kii mais bi bi ma gars yi wax ma ko man ah, amul problème ñu ne ma essayé mère ma def ma def ñu ne ah mère yow mii mën nga ko yow da def daf la yow. naka la demee naka la demee ba ba ba ñu woo la fi nga xam ne mooy maîtresse d'un homme marié. waaw maîtresse d'un homme marié euh, dama sama benn cousin boo xam ne maa ko yóbbuwoon daaree ko ñu koy Babacar Mbaye Lébu euh, moom la gars yi woon ci ci nafi bi ci nafi bi mu fay tourné. après mu gars yi doon soxla euh, benn maam mu woo ma wax proposé mu ne ma ah gars yi dama dégg ñu wax benn maam wax naa fa sa tur nag mais comme ñoom nee nañ ñu la i faut nga ñëw fa man amul problème ma xëy suba muy dem tournage ñu ànd dem fa bu ñu demee mu présenté ma maas ak yi yëpp ñu nuyoo kafre yooyu ma toog après ñu woo ma si kaw waxtaan man na ma après dañ la woo la ma fàtte ko sax parce que ay deux semaines après maa ngi si leneen ma toog nii rek sama portable sene

ba bi ñuy tourné maîtresse kiiwu ma sax dama toog un jour sama téléphone si ne ko kon mère Marème ma ne waaw waaw ñoo la soxla ma ne Marodi euh, lu xew ñu ne ma bi kii bi ñu tourné daañ bëggoon nga xool ak yow ba pare man ab moom ñu ne waaw ma maas ñu toog ñu waxtaan ñu ñëpp maas na ma sincèrement mooy discipline bi ma lay wax rek bi ma ñëwee maas lu ma mu ne ma rôle bi de am na ñu bëri ñun proposé mais gars yi den na ma nañ jël mère Marème parce que moom vraiment du tardel kenn si liggéey elle est disciplinée elle vient à l'heure loo ko liggéeyloo macha allah mu liggéey kër boole si ba def caaxaan def dara da koy liggéey macha allah ni ñu ko bëggee mu jël parce que Nafis daal xool nañ ne mère Marème daal macha allah daal. waaw loolu moo tax ñu jox ma ñëwee yaa ngi wax sànq rôle bi ñu jox la rôle maire bu bon bu soxor. naka naka la naka la don demé ba ñi nak ma toog ay waxtaan ak man ñu wax expliquer ma kalista bu nekkon 2S mom mo bind film bi mu ne wax eh way sama mère baangi mère mère tay bi mom du ne utax yu dëkk yi bi mom pank nga ci doon man pank ñu ne ma mère bu dëgër bop ngay doon man a ah, bon na ah, mu expliquer expliquer ben séquence mu na ma défaral ma xol ma mu na ma ah yow mi man yow mi la kay jox sax yow mi ya kay tourner ndax lima bëgg ci yow mi la nekk ak manière di def na man nag amul problème nañ dem mais biñ démé tournage ñu def ñaari séquence ñetti séquence xale yu góor yi dañu teg seen caméra di ma tàcc man leen bala ma def ni damay rus <laughs> waay yéen ma def ni yi dañuy ree ah mère yow macha allah yow moom bu la utul woon la amoon dañ lay wëri macha allah noonu daal laa fa nekkee nekk ak ñoom. comme li nga wax sànq si sénégalais bi nga génnee parce que maîtresse amoon na succès amul ñu doon jaawale. ñoo xam ne dañ dañ lay dogaale ci mbedd bi. di ba rek barke dem ba rek macha allah di féliciter artistes yëpp di féliciter Kader euh, Jara parce que lu mësul def lañ ko def ñun artistes yi def arbre de suñu doom yi le 18 ba samedi ñu def ko euh, fële euh, nu mu tudd ci monument de la renaissance fa lañ ko defee maa jàll ka nag ñu daje fa mais xaw na toj maa jàll ka benn maire ñëw na yow la yow la jàll ka kii maire bi nangam nangam. eh tëj leen théâtre bi fii dañuy dañuy sargal sañuy doom leen yooyu ba leen kii mais léegi nga génn benn kenn la ay bon yow meer ni nga def jëli que nii ba teg yaay yaa tax mu waaye loolu rëyu ay yéen li filmé la amul cancer leen ko leen ko amul cancer li filmé ngeen meer yow yaa yow da ngaa sonal Jalika yow feebar mu am yaa ko teg kii naan yow meer yow di nga tey suba may dem centre bi benn xale ma xool meer ma ne ko ah ma na nga def ma ne ko sax mun ma yow doo bàyyi Marème Jal yow ma jël bëgg sey sey bi da nga naka do sey sey sëy bi mën na ko ma dem man laal la moo ma neex ndax laal la sha allah mban na place am ay maram jali duñ ko mais lu ne ngay dégg lu ne lu ne lu ne ngay dégg té effectivement dafa am euh jox la benn anecdote ben femme daf ma dab 4-4 la yor na pip pip pip ma gëstu nak ni nii mu ne ma si tali bi de ma di ñëw mu ma yow fo dëkk mu ko man tënge da dëkk fi nga dëkk tënge mu ne ko mu ne ma ngi lay gëreum di la sante ma ngi lay gëreum di la sante mun na ma lii nga def nii deful leen ko kenn man ngeen ko defal man kaa mun na ma sama goro ay la ilaha illallah sama goro lim ma wan man de maa ngi soog am jàmm munoo fi ne bii daw ñëpp lay woo si moom pour munoo toog xool mu xool ni ma daan def teg teg amul changement. ma ne ko la mun a ma ne ko léegi nag noo def mun a ma léegi maa ngi xam daal léegi bàyyi na ma ay yow léegi bàyyi na ma yow de soo xamoon sa kër naa la seet si man nag problème am problème ku bàyyi na la rek alhamdulilah sante yalla yooyu fexel bo say goro fexel bu len def ni nak yow tamit say goro nak len uf comme sa dom bo jur deng mu reey ba beug de xam nga yooyu tamit fay neex nit ki di ko wax day neex nit ki ne la man kat li dalon na ma mais sama di génn na ma si mais tamit eh, li ma si rafetlu moy tout temps seen jëkkër yang len di encadrer seen jëkkër yang len di japp parce que goro yu mel la fi beuri sa jëkkër sa dom day day tak jabar ñew nga bundu xataal ko bundu xataal ko bu mu génn nga des gënaa nak tok yow loy tok sa kër ga yow dong loo fay def yow dong ay doom kay ba leen jur nga ñaan yàlla ñu indi la ay jabar ñu am ay nga ay sër mën a fa mais xoolal kii waa kër Jalika yi ni mu leen di def Jalika feebar na sonn lu leen def nag neexal bu ne neexal na ko gor-gor bi tëj tëj ci rek. bu ñu bu ñu bu ñu génnee si cadre loolu noonu entre Jalika Biram ak Cheikh kan moo ci gën a nekk sa waay si tournage yi. waaw ñoom ñëpp nag samay waay lañ macha allah samay xarit samay xarit mais mais Biram Biram. biram dafa nekk koo xam ne kii dafa dafa attention daf may daf may daf may daf ma daf ma kii xam ma nu ma ko defee daal daf ma tax xaw ma daf ma yërëm may oo téléphone whatsapp dañuy waxtaan maa ngi moom daf may jëkki rek moom mu ne ma mère mère na mën naa la ma ne ko doom maa ngi mu ne waa foo ne ma ne ko maa ngi nii ah na mën naa la ma ne ko doom maa ngi daf ma tax d'un côté aussi dafa nit koo xam ne kii dafa jullite biram contraire li muy wane waaw biram dafa jullite te man dama bëgg loolu ci nit

entente boobu ñu amoon maa ngi moom dañu daan toog di waxtaan ci diine di waxtaan ci diine ak ak ak ak. maanaam bi dafa différent ak moom. waaw waaw bëgg nit social dafa bëgg nit ku ñëw kottanal ñëpp nag kottu Fontaraayu béré fii nangam nangam moom daal dafa turbulent moom. waaw moom daal moom wax dëgg yàlla nit la koo xam ne kii macha allah macha allah macha allah Cheikh aussi li ñu doon joué maam raar raar lañ doon am ay séquence mais moom te bu ñëwee fu ma nekk dina ma wër ani sama yaay ani sama yaay ñu ne ko sa yaay si biir dina la mun a fëgg kon kon yaay jógal jógal côté ba daal may fóon def nii foo kafre xam nga laal la aussi bu ñëwee jalika ñoom ñëpp daal man ñooy bokk nekk su ñëwee yéen doo leen dem seen ne ngeen bàyyi ma fii la ñuy tudd sa kaw laal laal bi ñun ñëpp a koy bokk ñun ñëpp ku nekk da yor sa sa sa scénario di lire ñu ne jalika kaay à ton tour mën na ko demal loolu ñu dàq la mu ne loolu nga ma yéene xaaral ma ñëw toog sa kaw bu ñëwee sama kaw lay toog. <laughs> madame aussi noonu macha allah xale yi daal ay jàmbaar lañ macha allah macha allah. Euh, yéen a ngi préparé seen saison 2. waaw d' après ñoom di ñu waxoon dañ ne woon dañu am saison 2. Euh, mais dégganguma leen nag quand même dégganguma leen dégganguma si dara mais n'empêche que terew maa ngi maa ngi am ak ay relation di wootante ñoom di waxtaan di koof di ree ku na ma ko ne ma ko sa morom daal n'empêche que aussi man maa ngi nekkat ci yeneen tamit di liggéey ak ñeneen ñoo xam ne wax dëgg yàlla ay série la euh, ñu ngi si di liggéey am na benn bu pare sax bu boo xam ne dégg naa bande annonce baa ngi daw RTS Common Town fii la ñu ko ay taxi macha allah yu bëri Dakar Tëngéej géej waaye Pikine ñëpp ngi ci biir mu nekk série bu mag a mag a mag mag a mag a mag xam naa RTS1 lay daw. mais boobu nga jógee muy maîtresse série bu mag la ndax gis nga si sa bopp bu baax parce que dañ naan acteurs yi duñu gis seen bopp ci série yi. macha allah macha allah laf cat macha allah xam nga li olof Ndiaye naan ku yàgg ci teen baak fekk la ci euh, ñun daaray Kocc euh, duñ doon liggéey famille la dañ daan def bu pièce génnee ñu jaay cassette ñu fay artistes mais ak tonton Cheikh Diagne aussi noonu la doon demee mais amuñu woon problème tonton Cheikh yal na ko yàlla jéggal te yërëm ko.